nee danaa dañ la naan nanga tal nanga tal daa mhm. dinga tal ka parce que askan moo ëpp doole benn nit benn nit warul terroriser ay nit mhm. yow ci jaar-jaar yàlla dafa defal loo xam daanaka deful ko kenn nga ñëw yilif ñoo xam ni ñoom ba ñuy am teraanga ba ñuy xam teraanga yow amoo ko xamoo ko nga ñëw doon seen kilifa di leen sant ñuy def di leen wax ñuy def ñu ne la kayit yi dëkk bi nii laa doxee yow sa bopp nga ñëw ne kayit yi dëkk bi nii muy doxee nii man dama koy gën a sax renforcer waaw nga am ay nit yoo xam ne dañoo jàng ba am xam-xam ñoom ñu ne ñoo lay wutal lay pour nga jalgati. te jalgati bi am Afrique francophone Afrique de l'Ouest yépp c'est pour faire plaisir man man googu ñàkk jom la xamut la mu doon ci àdduna pour les chefs d'État qui ont eu à président nag jalgati defagul jalgati dañoo njot ni dafay nar a jalgati jalgateegul donc moom bokkul ci ñàkk jom gi te amuñu yaakaar muy dox lool donc bokk si bokk si dégg nga bi mhm. bokk président Sall bokkul ci ñàkk jom yooyu chef d'état yu ñàkk jom yooyu bokku si parce que jalgatewul moom nii wii la wax bu mu jube nanu déglu rek ba xam ba booba incha allah waaye nu lay wax lenn Sénégal moo dootul nangu di doon réewab jaam 62 ans d'indépendance yoo xam ni ji dundu jaam la nu dundee mm-hmm. les accords coloniaux dont on a parlé hier am na ñu ma woo di ma laaj ne ma est-ce que information bi c'est vérifié c'est normal que les gens posent des questions. surtout c'est normal. très normal c'est très normal dañuy dund jamonoy fake de partout ñëw de partout waaye koo xam ni dañ laa wax ne la la mënti xew sa dëkk bala ngaa wax kenn waxal ak France yow 2011 ba France di ñëw naan day dàq terroristes yi Mali lu Mali dañoo génn di tàccu. malien yooyu doon tàcc ñoo leen dàq di yuuxu est-ce que foofu accord amati na fa sens Russie di ñëw di indi di leen dooleel est-ce que accord amati na fa sens c'est la réplique qu'on donne à ceux qui pensent que cette information n'est pas vérifiée et que ce serait du fake alpha ou bêta le Mali a tourné le dos et ils sont en train de s'organiser dans ce sens. Mm-hmm. Le Burkina Faso est en train de s'organiser dans ce sens. Le Niger, les populations sont en train de s'organiser dans ce sens. L'Afrique tout entière en a ras bol. C'est-à-dire, il faut que vous autres la les intellos là du Sénégal et d'Afrique, ils vont bien comprendre benn affaire. bàyyi leen seen seen clan yi seen cercle yi ngeen bokk ak la ngeen fa bokk ak na ngeen ko bokkee yéen a xam bàyyi leen seen groupe yooyu ngeen bokk foog ni vous continuerez à détenir le pouvoir comme nguur mbirab sunu borom la dafa am àpp lépp àpp la si àdduna am na jamono boo xam ne mën ngeen teg seen ay loi mën ngeen dooleel homosexualité dooleel tout ce que vous mais day am àpp day am moment boo xam ne da ngeen di taxaw bàyyi force mu neex leen mu naqari leen ngeen bëgg ngeen bañ laaj ma lu tax médecin ci boppam mooy fajaate xulil lu tax médecin di feebar kon lu tax médecin di faje di feebar suñu yow nga ñemee yàlla di ñem di ragal tubaab luy loolu tubaab di feebar ba jaaxle ñëw fëgg la coronavirus laaj leen sénégalais yi newoon Europe dañ lay fëgg ñaan la dinjeer bi ngay naan pourquoi vous ne tombez pas malade nous ne tombons malade donne-moi le truc jox la nga naan guux guux guuxaat ngoon tout mu nekk sa boisson nga xam ni Afrique yàlla defal na ko sutura waaw ñun lu noo tiit dañu toll nag jamono boo xam ni population yi ñoo nekk Thomas Sankara. Mhm. population yi ñoo nekk Ahmed Sékou Touré. population yi ñoo nekk Sylvanus Olympio population yi ñoo nekk Kwame Nkrumah population yi ñoo nekk Assane II fële ca Nations Unies ba ñu ne dañuy voté contre Russie Maroc. Mhm. benn africain yi sax di wax ay neutre Maroc dafa voté contre ne àndul si ñu def loolu Russie. te pourtant Maroc partenaire États-Unis la nit dafa moom boppam nit du yambar nit du yambar ak la munti xew nit du yambar tayle sa bopp joxe sa bopp ñu téye la ni kopp naan la nii nga topp si nit du nangu loolu moo tax sunu président bi Macky Sall Sénégalais yëpp ñoo war a ànd waxuma ne ci ginnaawam de nañuy bàyyi nañuy bàyyi benn kàddu nu ngi sa ginnaaw sa gannaaw wóorut dañ lay jàllax wurut dañu ne sa wet ñu ñu dajaloo ne sa wet mhm. séq la fii séq la fii nga am fit waaye nu ngi sa ginnaaw bàyyi la nga jiitu ba amu fit rek problème am nga sànkunu président àndal ak sa peuple mhm. soyez avec votre peuple président Sall vous n'êtes pas un français vous n'êtes pas un belge êtes sénégalais monsieur le président ñun ñun lan moo tax ñu àndoon ak yow dina defar ci ay principe parce que sénégalais nga boo nekkoon keneen peut-être amaana ñu maandu mais sénégalais nga 2008 ñu la jëlee ci assemblée bi ñun am ànduñu si ñu ne ni ñu koy def du dëgg du yoon te pourtant ba ngay nekk directeur campagne président Abdoulaye Wade on n'était pas avec vous on n'était pas d'accord élection 2007 Idrissa Seck amoon na doole boo xam ne ñëpp dañoo jàppoon ne mooy doon président. ca diggante ba élection yi ni mu demee bi góor gi gagné lu ñu wax sénégalais yu bari dañ doon wax naan mais góor gi xanaa ay jinne ko votel mais bañ la génnee assemblée nañu na mu demee ànduñu ci ci principe ñu défendre la te jamono boobu yàlla a mën a àtte noonu ñu la defoon mais loolu nga bëgg a def tey Mimi Touré Aminata Touré sanu yaay bi te loolu ngeen ko bëgg a def noonu ñun principe bi taxoon ñu défendre la ci jamono boobu principe boobu la ñuy défendre tey sanu yaay bi Aminata Touré parce que lu yoonu yoonu lu yoonu du yoonu. Mhm. donc monsieur le président soyez nom de Dieu avec nous. Mhm. soyez avec nous sincèrement président Sall soyez avec nous. merci merci Pa Assane jërëjëf waxtaan bi am na solo dañ doon nuyoo rek nga la ñu nuyoo fan yii lii xam ba mu tàng.